sentiment de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que toutes les situations que je viens de décrire, que l'on parle du Soudan, du Sahel euh, ou de Gaza, dañoo gis ni daal si dafa am si anam gi nga xamee ni noonu la kilifa yi jiite àdduna war a doxalee ak réew yi nga xam ne dañuy dund ak fitna fi mu tollu tembe li ma tudd léegi sa Soudan sa Sahel ak sa bande ba Gaza waroon na tax communauté internationale bi yëpp jokk ŋàññandoo ko ut ci ay pexe ngir rek doomu adama yi nga xam ne ñoo nekk sa réew yooyee waaye li ñu gis moom leneen la ñoom daal mën nañ ni lenn dong lañ jàpp ni jaarul yoon mu di cong gi nga xam ne Russie songu naka Ukraine. ñi may gën a nag joxoñ baaraamu tuuma mooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk système bi ñeel droit international humanitaire. fi mu tollu tembe moom bu ñuy xool dafa mel ni dañoo jël teg ci suuf lépp li nga xam ne moom la ñu diggee woon ak àdduna bi. jalgati nañu si anam gu doy la nga xam ne moom la ñu tëxañoon ci déclaration universelle des droits de l'homme de ce système basé sur le droit international humanitaire le système des Nations Unies euh, semble avoir abandonné ces valeurs euh, euh, fondatrices d'humanité et, et d'universalité qui sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme